salam salaamaaleykum kumba am nday kumba amul nday dafa xew ci réew mi gaañ xam ngeen ne booy jinne mom daanooti na séri ndeysaan oh tey sa ta no so jigéen ci xaar xaar xaar ma woon ndey gi ndeysaan asaratu ndey way ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm tey yalla c'est pas possible li li mo li du dëgg quoi billahi li non c'est pas vrai waaye ndey ana numéro am sax mu muñal nga ndey su muy foog a saraxe quoi. Ndeye Ndeye ziar naa la. déet no dama koy wax mu muñ rek bi bi. non amatu yoo jóg. non tey kay dama pour pour kay na nga muñ rek. wa amatu nga jóg la wax est ce que. suba suba suba nday nday nee ko bu xëyee suba mu saraxe laax. wa ak la tandrama wa waaw. ma sarax la ko yow. ah. ma ñëw sarax ndax ko. ah déet doo ma ko sarax kay man maa ngoy koy sarax si supporteru supporteeru papa boy jinay kay nga koy sarax wax deug yalla ah. kaay da nga yaru lu xew. dama yaru dama mos yaru sax mais ah, mais ana nday. mais ana nday nday lu muy def. ah ana nday. Ah? ndey ge ana ndey ge lu muy def. ndey ge daa ah bon. daa génn xam naa xam xam naa boo xam naa boo demee tension bi yëkkati na rek ah tension bi. sa të të të moom mais mais pourtant ndey mënoon nga mu jël nga. ñoo caa tët man dama jommi sax noonu nday moom vraiment lii moom lii moom natt loo ko waaw mais nday muñal nag waaw muñal quoi muñal vraiment dégg naa yaa ngi yaa ngi daan daan yu métti dégg naa tension bi daa monté ba ci kaw.